يا خير طيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi laa silta dayfan kariiman saayiran abadan mukarraman bi qiraa taati wa sadadi معظما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد لا زلت معي أو سار وقادي أو طار وتارد أخيار من القلد وسافدا كل شيطان بما معه ومتفا لسبي الإحسان بالسفد ومسبا كل أحسان نديق بها في الدار أفئدة يا مسب النكد وزائدا كل عام ما نفوس به من جود مخن كريم نافع السيد يا سحر رب كريم فيك جادلنا بليلة القدر ذات الفضل والرقد يا شحر رب كريم فيك جادلنا بليلة القدر ذات الفضل والرقد يا سعر رب كريم فيك جادلنا بليلة القدر ذات الفضل والرقد inni uhibbuka hubba saati saa tarabin min maliki fiika isaadan bila awadi za tawbatin fiika aydan maadiyan abadan bisikri wassukri walqur'ani lil ahadi إليه قد تبت في سعبان عن رجب مجددا فيك فسلي بترك ددي لسعد بأعصي كتاب الله فيك هنا إلى ارتعاء asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu mbokk yi ñuy am mbégte ci kàddu cant ak nuyoo fii ci orphelinat Kër Maam Jaara muy bërëb bi ñu taxaw jëm ak baayo nekk fii ci Touba Darou Khadim ah, bis bi tey di àjjuma ji nga xam ne mooy tolloog ñaar fukki fan ak ñett di bisu laylatul xadr ñu amaan mbégte lu dalal suñu mbokk yi di ay mbokk yi diine waaye di ay mbokki taalibe di waa xidma jëf tey nag ñu amaat mbégte mu yaatoo yaatu ci bis bi waa rawate nag suñu sëriñ bi suñu waajur di soxna wàllu mi nga xam ne ñëw na di waajur sam suñu Abdou Aziz mi ñëw na ànd ci liggéey bi te taxaw si ko loolu nekkaat ma daf ñu gën a dollu ak cant ak gën a dëgërloo ci ni liggéey bi nekk liggéey Sëñ Tuubaa la ndax liggéey Sëñ Tuubaa nekk njaboot Sëñ Tuubaa di la ci gëm nga sëñ bi ma nga ci biir kon sëñ bi ñuy yëkkati kàddu ko teg ci loxoy soxna si ngir wax ne jëf ji kawe lool ko faral faral daan waxee rek tey ku ñëwaat gisaat lii da nga liggéey moom am na tànk kanam naan jëf jëf moom fooy la baax waaye Tuubaa da ci rawati waaye nag gën a tam waaye weeru aw ñam nga di ko jox nit te kan koy jox di doomu aadama joo xam ne tey amul ku ko jox ndax ay waajuram nekkul fi mën koo jox yéen na ngeen sasoo liggéey boo xam ne damay wax ni yéen ci jiitu mën nañu keneen koo def ëllëg da koo ci yéen waaye ndogi kër maam jaar boobu saa ñu ko déggee xel day dem ci Sëñ Abdou dem ci Soxna Yem Wañaan waaye day dem ci xel ma jëf gépp a ngi ñu sasoo saa yu koor jotee li ndogu ci biir dëkk bi li muy rëy rëy seen ndogu lañ ciy gis ñoom kon mën nañu jër mi bu ñu waatee wenn ñam yéen seenu ñam watuñ ko kon nag loolu jëf la joo xam ñu ngeen bàyyi Sëñ Tuubaa xam ne moo tax ngeen di jëf Sëriñ Tuubaa nangul ko bopp ndax xam nañu jëf lu mu nangu ba noppi la ndax nangu na liggéey bi kon lépp lu jàll da koy da nangu ñu lay sant rek cant koo xam ne day bàyyi ko ci xale yi nga xam ne tey suñu a wax ñoom ñoo waxal waajur ñu ngi ci kaw suuf ba léegi ndax taxaw ngeen seen taxawaay waajur waaye ñi fi nekk di xale xëy na mënuñu wax seen xol ak seen mbégte boo xoolee seen xaram da xam ne ñi am nañ mbégte mbégte fu mbàyyi ko mooy seen jëf yu kawe

tey am nañ yaakaar tamit day gën di wéy jëm ci kanam rek ndax bari nañu koy dégg ñoo xam ne tey am nañ yéene fas yéene fekk bari nañu koy dégg di ko laajte na xam ne jëf ji daal waa Xidma jëf ci jiital ne ñoo ne na mooy ajuma ji mujj ci ndogo incha allah ndax xam ne jeen jëm ñu koy gàmmal ngam waaye mën nañ li ngeen fi indi moom mën nañoo yor ba ay ajuma yu bare bare sax fii ba ñu woor incha allah yaakaar naa du jeex kon na yàlla yàlla suba nangoo jëf yëpp kon daal ci turu gi rek kàddu yi bañ a gudd ndax tey tàngante bërëb bi sori na waaye daal ñu leen di delluwaat cant ak ngërëm di ñaan yàlla suba fay li ko si barke Seexul Xadim di ziare njabootu Serigne Touba lépp lu ñu am rek ñoom la ndax am na lu njabootu Serigne Touba ndax lépp lu ñuy liggéeyal luñ mënti am rek jirim moo ñu ko gënal su weesoo liggéey Serigne Touba yëfi jirim moo ñu ko gënal biñ ko sasoo ba nëgëñ daanaka bu jege fukki at jege fukki at ak benn biñ koy ànd ak biñ koy ànd di ko liggéey metti woon na lool biñ leen ci fekk metti woon na lool waaye lépp sëriñ Touba dañ leen jàppale defal leen ci tawféex ñëpp maa ngi sant suñu waajur ñu ko àndal ak ñëpp ñu ko àndal di ziare as baara lool di ko ñaanal suñu borom yàggal taxawaayam ndax bu ñëwee ba ma ñeme daanaka moom a fekk si woon ba mu metti moom laa gisoon su ma gestoo ci yow laay ci yéen laay daw si yor suñuy leget di ñaan yàlla suñu borom defal ñu ci xéewal yi baree bari mu doon ay nagi nag doon ay xéewali xéewal ba xam ne doomu aadama bu ngeen rombati dootu leen ko xool ñaan nañ ko suñu borom ci barke weeru tedd bi barke laylu xadar di ziare sëñ euh, sëñ galas sëñ seexu naaloo di ziare euh, soxna maam bu sa di ziare yaa waala mbàkke mi xam ne mooy njiital jotaa jotaay bi ak soxna jama jaxate ak njaboot gépp ñu ko àndal ak waa bu ma limee damay juum ndax sama xol dafa sedd fu ma duggee fii rek sama tànk day dem ñaanuma yàlla sol fi ay dàll ndax xale yi ñii bu may bu ma jubee rek sama yaram bi day daw di ñaan yàlla sëriñ Touba jàppale lépp ak képp ku ko àndal ak képp ku ko dooleel képp ku képp ku nekk ci dëkk bi rek na nga fas yéene ñëw jàppale orphelin kër maam jaara ndax liggéey sëriñ Touba la liggéey suñu borom la daray ngistal war a daray caaxaan war daray loo xam ne lépp luy yàq la ñaan ñu ko suñu borom yàlla suñu borom may ñu kàttan may ñu wér may leen njaboot gu jub sa barkeel ba suñ njaboot ak njaboot ñëpp di ko liggéey ci barke Seexul Xaadim ñu ngi leen nuyu bu baax a baax soxna si sedd si toog muy soxna maa sawaalo ko fab joxal na ko soxna yëpp soxna yi mooñaan ak sëñ Abdou Assis di sof samay kàddu ci kàddu sëñ yi di leen ñaanal bu baax a baax suñu borom dool leen ay tawfeex di gën a santaat yàlla nag bu baax a baax a baax doolu ci lañ ko santoon di seex Cheikh Mouhamadou mu te mu yàgg fi te wér lool ci seenu taxawaay soxna yi mu ni nga ko waxee rek taxawaay bii moom daanoon bu yàgg lool ta sax li gën a jafe sëñ Fall ni mu koy waxee nee na jëf sax te moo gën ci jëf ji te seen jëf da ko saxal ndax ba ngeen ko daay defar ko indi fii ak boobaa léegi yàgg na. ba tax na damay wax ni seen ndog yi gàccaal na ndog yi nga xam ne li Touba di rëy rëy rëy rëy ndog yi moo ko gàccaal damay wax ne nag xam naa xëy na daa egsee gudd waaye dana mën a egsi waaye boo egsee dina xam ne yéen jiitu ngeen ba noppi yéen jiitu ngeen ba noppi ku ñëwati rek. ci seen gannaaw lay sof kon yàlla leen yàlla doole bu baax gudd fan dolli leen aw tawféex te day mel ni ni sëñ Fall waxee rek ajjuma ji moom day mel ni moo mujj ci ci koor gi kon nañ ko teewaat nagan déwén te sun nagan déwén dàqal na sunu nagan ren te gën noo doole ay xewal bu baax doole na tawféex ak tawféex di leen ñaanal yéen ndaw yéen ñëpp nag ci ngeen bëgg a rek yàlla na fa yàlla egg barke Seexul Xadim seex barke Cheikh Lamine Bara mii nga xam ne mooy borom penc mii nga xam ne moom la yàlla dogal na maanaam yéen ñi ngeen di fi dégg mu cëroo cër bi asalaamaaleykum wa maa ngi nuyoo ci nuyoo bi gën a sell muy asalaamaaleykum di jiital nuyoo bi uh, suñu wasila suñu sëriñ sëñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg loolu te wér di ci teg soxna wàllu Mbàkke bi ñu àndal muy sama waajur di ko ñaanal bu baax mu gudd fan nekk suñu kanam di sant nag tey moom sama xol daa mënu ma wax jëf ji daa daa kawe sama njot ndax liggéey bi yàgg nañ koo liggéey gisuñu kenn muy metti guddeeg bëccëg subaa ngoon fu ne ñu dem fa di jooytu ku ne dem nañ yitte ju ne fu ne waxee nañ ko fa nit nit kuñ ko wax sax mu ne baax na daa taxaw mais buñ paree duñ ko déggaat ba tey ji yàlla dimbaluñu keroog bi ma ko jëlee vidéo yi publier ko kilifa gu baax directeur LONASE Lat Diop bi mu ko gisee na ma lii kat yitte ji yitte ju am solo la daa jàpp ba léegi déggante wuñ téléphone noonu la ci jàppee ba tey xewal yëpp tey moo moo ñu ko yónnee ba pare tamit ne fasal nañu kóllëre boo xam ne ñaan na yàlla weer wu dee mu def daa bëgg ñëw fii dëggal leen salaire weer jot ngeen am seen wàll kon nag kooku bay ba ñu ñaanal ko ci barke Seydina moom barke Sëriñ Saliou mi ñu yaakaar yàlla yokk garaatam dafa koy xewal ndax kooku mbubbawu dëkk bi moom day dundawu dundawu dëkk bi day dunda dëkk bi ndax tey ji bu ko neexoon mu ne Dakar la féete mais yoram ne ko mu ngi jàppale waa tubaa te man képp ko waay jàppale ci Touba ku dul xale yi man safoo ma man lépp lu ma waay dimbale lu lii nii ma nekk ci nga ñëw jàppale ma ci loom ay millions moo ko joxoon bëggu ma man képp ko ma bëgg dimbale te yàlla tax lii laa bëgg nga ñëw dimbali ci ak ànd ak mouvement Xidma Jëf bi dimbaluñ ci yàlla tax ñu ko sant nag directeur Lonase Lat Diop ñu ngi koy sant bu baax di gërëm di sant tamit Cheikh Pouy mu baax ndax vraiment jàpp mi ngi koy jàppale ci liggéey bi te yàqalu ko te tey jii moom bu doon keneen donc lii nii duñ jot mais bi nga ko yëgee tamit def na ci ay jéego taxaw ci ba xam lépp liñ ko bëggee am na ko te nag lii da koo bett nee na dana gën a taxaw dafa bëgg a contrat boo xam ne weeru dee li ñu war a am euh, dañ ko am ndax lii xale yi ci société bi lañ bokk suñuy doom lañ suñuy rakk lañ suñuy jarbaat lañ kon tey jii ñaan nañ yàlla képp ku fi ne amut dara looy soxla doon na mu ndey doon na mu bàyyi lépp loo gees doo ko gis di sant soxna yëmu mi nit ku baax la koo xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa doon ko ñor daray àdduna ñor ko lu liggéey Sëriñ Tuubaa sant ñi ñu àndal daana gën a métti buñu daan dem dañ daan dox dem ba ci biir ñuy jëlee taxi laal ko bi ñuy eh, door jël nañ fii taxi dem ba àgg amul lu ñu ko fayee ñëw fii ba ñibbi amul lu ñu fayee taxi bi kon a tey jii buñ sante buñ demee ba tey jii liggéey bi dem ba oto yi wër ñu kon dañu xam ne liggéey bu nangu la la nga ma waxoon waa jooju dafa am du wax ji am solo liggéey bi du ko bëgg a jot def sa xaalis rek moo ci def képp ko yàlla nangu rek moo ci mën a def sa xaalis mu sotti kon nag yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla guddal seen i fan yokku leen yokk seen kàttan ndax liggéey bi yombut bàyyi sa njaboot bàyyi say gër ñëw fii toog di topp doo xale yi te ñii kat lépp lu leen waay defal barke Sëñ Saal doo ko rëccu man xam naa dara bërëb bi bërëbu ña bërëbu ñaanukaay la sak sàkkuwaayu ñaan la képp ku waay di wuti feneen leneen ak fu la neex demal mais bërëb bi da jege na gaaw ndax xale yi amuñ bàkkaar te yaakaar naa ñaan moom ci ku amut bàkkaar la gën a a yomb boo déggee ñaan ñaan kat du mag yi tax ñu ñu mën a ñaan yëpp maam dañuy dundee dañuy dundee lu leew mooy mooy mooy lii rek ñii waaw amuñ bàkkaar di sant sëñ Ndiaye Guèye mii sëñ Lamine Diop ak suñ ñëpp daal bu lim da koy joob suñ Saliou Baye sama xarit la benn bakkan bañ jàppee ci liggéey ba léegi tamit moom bàyyiwut waaw aju mu jot ginaar yi xaaj yëpp moo ko sasoo kon kooku dañ koy ñaanal yàlla yokk ko yàlla taxal ko di sant daal équipe bi ñu àndal yëpp ñun nag dañ cee gën a turi xëy na ñun ngeen gis ñuy wax mais ñoo ci gën a turi waaw ñu ngi ñaan nag di tàllal ñëpp loxo képp kuy dégg suñu kàddu fu sa fu euh, kii bi mën a yem rek euh, wax ji mën àgg rek ñu ngi tàllal ñëpp loxo képp ku ñu bëgg dimbali te yàlla tax ñëwal nga dimbaluñ bi ñun moom lañ am sol luñ xaalis gooñ ñu dimbali ci bërëb bi yàlla nga dimbali suñ tubaa nga dimbali ndax bërëb bi suñ Cheikh Sidi Mokhtar moo lañ joxoon digal li ñun day suñu maam sama waajur wi moo ko tudde woon Baye Fallou suñ baara ci kon kon man man ma den lu social man lii rek laa man lii rek laa xam waaw kon nag yàlla nañu yàlla dooleel waaw làqal ñu cat ak seytaane musul ba mu mucal ci musiba ak balaa lépp lu bon daal yàlla nañu ko dàqal te boole xol ta tàppaati xol yi daal man daal mun maa wax tey sama xol laa tooyee waaw di leen ñaanal lii ñi ngi tàllal loxo président Macky Sall ak soxna Marième Faye Sall ñu ngi leen tàllal loxo ñu jàpp ci béréb bi béréb bi bérébu kaay la te wallaahi lépp lu waaye di ñaan fii gën a gaawee te fii la gën a gaawee te man xam naa dara kon nag ne ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi xaw xale yi dimbali leen te yàlla tax te bañ cee wut benn ku ne dem nañ ku ne dem nañ mais kenn mësu ñëw kon nag Lat Diop ñu ngi koy santaat bu baax ak fondation Lonase bépp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci barke Sëñ Touba. di ko woo mu ñëw jàpp ci liggéey bu baax a baax jàmbaar la gis na li social bi muy def Touba na ñëw gën a jàpp ci liggéey bi daal yàlla ñu yàlla dimbali suutura ñu ñëpp barke a Touba. ghayra dayfin ata bil bisri wal madadi wa sahlan laa silta dayfan kariman saayiran abadan mukarraman bi qiraa taati wassadadi muazzaman inda rabbi laa sharika lahu wa inda ahli tuqaa wal ilmi warrasadi لا زلت معي أو سار وقادي أو طار وتارد أخيار من القلد وسافدا كل سيتان بما معه ومتفا لسبي الإحسان بالسفد ومسبا كل أحسان نديق بها في الدار أفئدة يا مسبا نكدي وزائدا كل عام ما نفوس به من جود مخن كريم نافع السيد يا سحر رب كريم فيك جادلنا